li ñu fi waral loon suñu taxawaay bi mooy dañoo sonn dañoo dee ndax ñun ñi ñëpp ay sage-femme lañ ak infirmier yu bàyyeekoo ci biir réew mi nekkoon di liggéey ñu def concours pour ñu yokk suñu xam-xam def master filière yi bëri na ba ñu ñëwee jàng si nag ba tey régime bi fi nekkoon muy le médecin docteur Xemes ak direction am xoqatal nañ ñu defal noo lañu lu ne dem nag ba dagg suñuy salaire ça fait trois mois ñu dagg suñuy salaire pécule yi stage yi ñu amoon yi ça fait dix mois bénéficier wuñu ci pécule yi waaw ñu ngi ñaan ku bees ki muy docteur Ibrahima Sy ñu koy dalal jàmm d'abord ci ministère bi ndax ministère bi bëri problème bi yëpp trop te ñun système bi kenn mënuñu si génnee kenn munu si génnee sage femme kenn mënu si génnee infirmier te ñun suñu xam-xam bii ñuy yokk dañ koy yokk pour delluwaat serviraat population bi kon ñun dañu yaakaaroon ne dañuy waroon xàllal yoon bi gën ñu yombalal liggéey bi waaye déedéet léegi nag ñun li ñu koy laaj mooy li ñu koy ñaan mooy na jël dossier bi en main mu téye dossier bi lijjanti ko ndax sonn nañ avant le 10 incha allah ñu ngi xaar salaire.